asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaxa xalifa général di kullu murit yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér mbooleem kuréeli xaside yi nga xam ne ñoo nekk ci tubaay Touba Italie ànd ak kuréeli xaside yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi ñooy am mbégte di leen woo di leen yëgal bisu xaside bi nga xam ne moom la ñuy amal at mu ne ren ñu jàpp ko niki juróom-ñaari fan ci weeru décembre ci atum 2019 ñu fas yéene ko amale ci gox bi nga xam ne moo di milaano Lombardia kon nit ñi def mooy jébbal kàddu gi ki nga xam ne moo di jëwriñ ji di Serigne Baye Sam Diop mu woote ci turu mbooloo mi bu ca jógee ki nga xam ne moo di Serigne Mbacke Ndiaye dina woote ci turu mboolem tout tànk yi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey bi ak ci turu commission culturelle bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi buñ ci jógee des na jébal kàddu gi Serigne Mourtada Seck mi nga xam ne moo féete ci gox bi nga xam ne fi lañ koy amale mu di Malpensa Fera woote mboolem ci turu daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci gox boobu nga xam ne fi lañ koy amale buñ ci jógee ki nga xam ne moo di Serigne Ahmed Ndiaye dina woote woote boo xam ne bu yaatu lay doon jëm ci mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi ca kenn ku ne xam ne liggéey bi ñu ngi ko ànd ak ñun boobu ba léegi ahasubillahi mina shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim barkama borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ni ko sëriñ Moustapha Kamal waxee ci ndigalu sëriñ Mouhamadou Mountakha te xam ngeen ne ndigal li mu nga tàmbali woon ci Cheikh Salim Mbacké yàlla na sunu borom yokk leeral ci moom ba ni mu agsee ci sëriñ Mouhamadou Mountakha yàlla sunu borom yàggal ko fi wéral ko fi kon ñu ngi woote ci turu suñuy jëwriñ itam di sëriñ Moustapha Mbacké Milano sëriñ Mahamadan Mbacké Noara ak sëriñ Fallou Mbacké Impoli ak mboolem ni nga xam nag ñoo topp si ñoom ci liggéeyu xasida yi ñuy woo mboolem njabootu sëriñ Touba gi ndax bis bi seen bis la di wooy itam mboolem daayira Serigne Touba yi nga xam ni ñoo bokk na ci réew mi ak diaspora bi yëpp bàyyiwuñu kenn fu waay mën a nekk te itam di ci toftal daayira soxna mam Jaara yi nga xam ni ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi foo ñu toll guddi ak bëccëg ñu ngi leen ci woo di leen ci séentu itam di leen ci soññ itam. suñu ambassadeur bi nga xam ni moo nekk Rome ak mboolem ñi nga xam ñoo ko jàppale ci liggéey bi moo xam conseil la moo xam ku mën a doon bàyyiwuñ kenn. kon bépp tuut tànk boo xam ne yaa ngi ci Touba Lombardie bi yëpp rek ñoo ngi lay woo ci ajjuma ji nga xam ne moo jiitu bis bi ci liggéeyu saal ba lépp loo xam ne daf ci aju nañ xam ne ñun la war ca samedi ba naka noonu noonu lañ ko war a ànde ba ca dimaas ja ba lépp loo xam ne andi woon nañ ko fa ñu fexe ba delloo ko fañ ko jëlee woon ba barab ba ñu delloo ko na nga xam ne noonu lañ ñu ko joxe woon kon ñoo ngi ci woo képp koo xam ne rek yaa ngi ci biir Lombardia bii loolu tamit ci ndigalu sëñ ñaan joo mi nga xam ne moom moo jiite commission culturelle bi ñi ngi soññee tamit ci njàngum alxuraan mi nga xam ne naka jekk bis bi moom lañ koy tàmbalee moom lañ koy gungee kon ñi ngi soññee ne kaamil yi kat tàmbali nañ ko ci kër yi képp koo xam ne bëgg nga cee jàpp ñoo ngi ci soññ bu baax ak ci durusum xasida mi nga xam ne sëriñ Saalihu Mbàkke moo ko joxe woon bi nga xamee ne andi na ndigal li mbokk ci xasida wakaana xanaa lay nanasul moominiin ak xasida wala xadd karam naa ak fastajaaba ak rabi bi maa yasrahu bi nga xamee ne alaaji baara mbàkke ñëw na moom Cheikh Fadil ne xalif Cheikh Khadim yokk ci xasida nga xam ne mooy jaalibatul maraaxib Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke moom it daa ci yokk xasida mooy nuuru daaree ni sëñ Muntaxa mi fi nekk na ñu ñaan mu yàgg fi loolu te wér ci yokk xasida ak ma faatul bisri muy xasida yoo xam ne bu jubee bis bi lañ koy durus ba ca bis ba ba ca gannaaw bis ba kon ñoo ngi ci soññi mbokki taalibe yëpp ñu jàpp ci xasida muy suñ digal yi nga xam ne moom la ñu kilifa yooyu jox ñu ngi ci woo mbooleem daayira Serigne Touba yi nga xam ne ñoo féete woo ci Touba Malpensa ci woo it njabootu Serigne Touba gi fi nekk te bu buñ ci waxee Serigne Jili bu Touba la ñaanoo rek mu yóbbaale ñëpp di ci woo it mbooleem daayira yi nga xam ne ñoom lañ seqal diine ji ñu ne ci zone bi yëpp ñoom it bàyyiwun kenn daayira soxna jaara yi moom it di leen fàttali bu baax a baax col gi ak yiw gi lool daal moom la ñuy sàkku ci bërëb ba kon ci kàllaama réew mi colghiamo l'occasione per invitare tutti quanti nel, nel nostro evento che si chiama Bisu Haside che si terrà a Malpensa Fiera inshallah il 7 dicembre 2019 sarà una giornata di preghiera di comunioni e di affezioni bu dee autorail bi la wàccal gaaru central Milan boo ko wàccee nga jël autorail bi jëm Varese bu soo foo ca taxaw wala Castellanza dina jël si foo waaye muntu jóge ci àddina bi te jël oto yi tamit ñëwal Milan Milan moom boo fa yegsee indication boo gis mën la Malpensa inshallah boo ñëwee dina jël si kon wo nit ñëpp bayu ñu kenn yalla na ci dajeeg tawfik sëñ touba sëriñ Muntaxa yag ko wote te ñu yàgg ci and mom ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam xasir borom Tuubaa yi man sant na yalla bu baax deug la ndigal mo murid warut am ndigal lu muy bëgg lu muy bañ waaye ndigal li de ci ndigal yi ma gënal ci kaw suuf ci la bokk kon ma ngi sant yalla bu baax fas ko ande fas ko yene ande ak yéen nu mu gën ak nu mu gën baax la xassay rek jëm ci karam karam gi lan mo sës may bis bobu nga wax mooy bisu 7 décembre muy bis boo xamante ni moo fi sës ñu war koo taxaw war koo waajal waajtaay wu doy sëkk fu mu taalibe mën a nekk fu jullit mën a nekk ci diaspora bi ak fu mu mën a nekk ci kaw suuf te man koo fekkee ni ñëw fekk ko te xam ne lii sëriñ bi wax mooy sekkare guddi xasida bu jëm ko fekk si bu ko defee ñu defe ko nañ ko daan def te barab yi ko daan defe na mu gënee te gën naa baaxe te gën naa selle te bañ a ànd ak dara yi àddina ni ko sëñ bi léegi na sëñ Tuubaa dara yi àddina ko léppam ëllëg léppam yàlla la bis booba it loolu rek lañ ci bëgg. kon kenn ku ne xam na ne ñi nga xam ne ñoo jógee biti réew di ñëw di ñu fekk si biir réew mi ñaari aéroport rek lañ mën a wàcc mu yi gën a jàppandi si ñoom mu di. Malpensa wala ñu wàcc fi nga xam ne moo di Bergamo. ginnaaw loolu itam ñu leen di yëgal ne ci ndigal loo xam ne nii mi ngi jógee ci euh, commission bi nga xam ne ñoo yor wàllu conservatoire ci mboolem kuréelkat yi nga xam ne bis bi seenu bis la ci ñoom ñoo ñoo ko woote. Yusam samonté ak sarté yi nga xamné ñom ñoom lañ leen waxoon rawatina nak heure bi nga xamné mom moom wara ñu ndax kenn ku ne xamné convocation bi 7 h ci suba la ci samedi bi kon loolu ñu bàyyiloo ci xel ñëpp kon bis ngok ngoog ñaan Cheikh mohammed muntaha mu yag fi loolu ta and ak wër bisub tiant ak bisub Serigne Touba daan waxé sukri ma sikayati min qablu wala sayan holi jihati jihaati kablu ñuy ñaan ci daraje Cheikh mohammed muntaha ci bayit bi nga xamné mom la Serigne bi di wax ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sallam nuro mom lool yalla nako sun borom deppele lepp muy lil muntaqa sirun asimun lam yura li xayrihi wala lam yura والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته